Père de Gaulle ñëw waaye Père Mansour Diop a ngi noonu. Père Mansour Diop. ngeen ñëw tey ku ngeen seen doom. vraiment barkaati démb. ngeen ñëw war a jàkkaarloog doomi Fass bi. waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la. papa déwén papa déwén it. waaw mu ngi lay naka mbir. yaa ngi jàmm. tey nga bëgg sa doom. sant yàlla yoo xam ne yaa ko juddul yaa ko ngéntal Ama Baldé. waaw waaw waaw kan mooy Ama Baldé. waaw ñu ne yàlla da nga ñu tàll loxo. mu ñaan ñu ñaan ko yàlla may ñu ndam si barke yonent bi barke Abdou Khadir Jeelaani Ama daan ko jël bu set loolu moo ñu indi Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. yaa juddul Ama yar kan mooy Ama ndax xam nga Ama liñ ne ci moom. Ama gaynde la doomu la te bopp euh, gaynde du jur muus gaynde du jur muus li nekkoon si bàyyi mu ko ëpp nekk si moom te incha allah liggéeyu ndey mën na ko may lu nekk. li ne woon ci nga ci soxla Ama Balde ndax gis nañ technicien nga te jàmbaar nga li nekkoon ci yow ci xeetu sañ-sañ ci xeetu bëre ci xeetu fit lan la ci Ama doon ci yow. waaw waaw waaw waaw lépp lépp rek nga xam ne combat bi amal nañu solo amal nañu fulla ñun nag lu ñu am rek mooy ñaanal Ama Baldé yàlla may ko ndam a xale yu fi nekk yëpp amal seen tijji na porte bi xale yëpp war nañoo ànd li ñu war a def. yàlla na ko duggal. jërëjëf Père Mansour nuyu naa la. maa ngi sant eh, eh, eh, Fadel. waaw nga jàmm. maa ngi lay gis. chaque jour wax wax fekk déwén. tey nga ñëwaat fekk sa doom yaa ko juddulu yaa ko ngente Ama Baldé kan mooy Ama. waaw mais doomu Falaay dina ko Papa Baldé ak Jules ñun ñëpp ñu bokk dëkk Biguine ay grand frère am la daa àndal ñu bokkoon nekk écurie Biguine mbooloo ñun ñëpp tey la école am rek ku ci nekk berse yi fi bopp mais tamit yàqu ci dara. lii tamit action bu baax la ñëpp ñëw teew ak sa présence ñëpp jàpp ci ndax lamb Pikine la. mais diggante Fass ak Pikine. waaw mais yàgg na am. xam ne Fass ak Pikine miinante nanu. waaw bu baax bu baax a baax Fass ak Pikine yàgg nañ ci lii lii dafa baax lii dafa am solo lii moo am solo lii dafa am solo lii moo ëpp maanaa amul dara lu fi am maanaa lii rek moo fi am maanaa am xew sa combat ñëpp ñëw teew dafa ak sa présence amu leneen lu fi am. loolu rek la waaw Ama suñu doom la man sama rakk la ndax Falaye Balde a Kumba Balde Kumba Balde di suma sœur li ñu bëgg rek mooy bu dimanche mu daan ñu ñibbi ci kàttu bi. Gris Bordeaux xeexkat la Ama bërekat. moo ko tax a bëri Ama Balde nekk champion. mais xeexkat la de te Ama. mais day bëri. jinne amu fi rab amu fi malaaka amu fi kenn ku am laaf amu fi ñaari nit rek ay taxaw di bëre loolu mooy la mu ñëw contrôler boppam téye boppam déglu tey loolu rek la. loolu rek tey rek kële xeexal la kii bëre kan la. xam naa ne bu ngeen jógee dëkk bi yëgul ah am dagal ma tegol ak Mansour Diop bi am dagal ma dagal ma bi. Père de Gaulle ak Mansour Diop am dagal ma ko jëlama Malick yéen waa Dakar yéen inter Dakar bés kii mooy Malick Malick a booy ñaa noonu di ñëw safara la àndal booy ñaa ngi noonu di ñëw safara la àndal Seydou doon taxaw nii balaa ñoo génne booy ñaa ngi noonu di ñëw waaye de Gaulle ak Père Mansour Diop ak Père de ñëw nañ ama seen ne tey Pikine yëngu na dama ne tey euh, Seydou Seydou Pikine dana génn en masse xoolal stade bi. Seydou jëlal stade bi. lii ndax AS Pikine lii lii AS Pikine doon ko mën a am. jógo nii de bis de. ama fonk de bis booy ñaa noonu de. booy ñaa noonu de wàcc na dina Pikine la de. lii rafet na Père de Gaulle ñëw na. Père Mansour Diop ñëw na. waaye Pokola Balde gi noonu Balde Balde bi. Pokola moo jëli Boña. Pokola moo jëli Boña magam kaay kaay mu sonk. kaay kaay kaay. Pokola tey yaa ngi jëli sa mag Boña. waaw waaw. mu mel ne tey Pikine yëgu na. waaw Pikine la kay. Pikine demee.